nu xayikum bi kalimi tayib assalaamu aleykum wa ñu ngi leen di nuyu ku nekk ci tur ak ci seen sant di leen ziyaar di baalu àq di jiital ci nuyoo bi responsable moral bi nga xam ne moo indi kaadar bi parce que gis nañ seen su bari bu ñuy waxal diine dafa mel ni fi ñuy yegg ak fii problème yi nekk amuñu kaadar bu yegg boobu ku ñu indil kaadar bi wax dëgg duñu mën lu dul sant ko parce que c'est rendez-vous donné à recevoir la ñu indil xam naa di jiitalaat si nuyoo yi suñu mama mama Kiné ak euh, ñoom maam Cheikh les deux maam Cheikh ak suñu magu daara yi fi nekk yëpp di leen ziar xam naa di def benn li ñuy wax coucou rek suñu waa ak su Europe xam naa ñu ñuy seetaan si en direct waa France waa Espagne waa Italie ba ba waa Allemagne ñoom ñëpp incha allah. ak suñu ndeyu daara yi ñoom soxna tataa Ndogay ñi nga xam ne ñun ñoo nekkandoo woon foofu xam naa si wàllu li mu wax rek gis nañ ne émigration mooy ki nga xam ne jóg na benn dëkk di dem beneen dëkk di dem wuti soit pour mu wut pour dëkk wala mu wut pour liggéey pour ñëwaat moom la ñuy wax émigration saisonnière wala pour dem pour dëkki nee na loolu comment tàmbalewul tey nee na dëkk yu bëri peuple bi ñu am c'est par immigration bu ñu xoolee Italie euh, États-Unis sax c'est un peuple d'immigration même yonent yi Serigne mu nee na presque ñoom ñëpp def dañ immigration du donc phénomène bu bu bees mais li gën a jaaxle léegi mooy bu ñu demee ba muy jur li nga xam ne gis nañ ko laaj na nag ñu ñëw taxawaat poser les vrais problèmes pour am les vraies solutions parce que bu amee boo posé wul les vrais problèmes rek amaana doo mën a gis solution bi moom laay wax suñu mbokk bi nga xam ne gis nga kaani yooyu nga xam ne dañ koy togg jenc ko at moom daf ko jëloon nga xam ne tuuti rek ngay jël moom def si soos la ko jàppe mais bi mu ko lekkee dafa jël rek téléphone am woo pompier na ko kër gi yëpp ngi tàkk ndekete bët yi moo doon tàkk moom mu jël ndox dem sotti si frigo bi du sotti télé bi pour moom defe ne ne loolu mooy tàkk ndekete bët yi mooy tàkk parce que posé wul les vraies questions ñun xam naa ne dañ essayé nag fii indi les vraies pour xool ne immigration commencé wul tey indi nag 70 ans d'histoire de l'immigration mooy nekk suñu première partie parce que au lendemain de la deuxième guerre mondiale en 1945 foofu la tubaab yi commencé wax ñu ne ñoom ñoo bëgg immigration am ñu jël ñi nga xam ne ñoo doon soninke yi ak ñi nga xam ne mooy saraxole yi ak euh, tukuleur yi dans la vallée du fleuve ñoom lañu doon yóbbu pour ñu dem defee émigration parce que góor ñu bëri desoon nañ ci àll bi donc l'Europe ñu ngi ko bëggoon tabax te amuñu woon force boo xam ne war nañ ko mën a tabax force boobu bi mu manqué ñoom ñoo ñëw fekk nit ñi ñu leen leen indi leen kaay leen ñu def émigration donc première partie de l'émigration foofu la commencé deuxième partie bi moom mooy bi ñu demee ba indépendance yi di commencer si indépendance yi gis nañu ne après indépendance yi carte de carte d'identité rek ngay am pour dem tukki ji soxlawul woon sax visa donc carte d'identité boo ko amee ak euh, këyit buy war na am nga santé bu baax rek boobu lañ leen doon pare nga yóbbu émigration donc mën nañ wax de 1945 à 1980 pendant trente cinq ans l'Europe cherchait à dénier les personnes pour ñu ñëw émigrer pour ñu ñu indi population cosmopolite pour ñu xool ñoom nan la ñuy leen di dimbalee ci seen wàllu économie ba ñu taxaw moom la ñuy wax moom moo dem ba trente glorieuses moom mooy année yi nga xam ne année yu yu neex la woon ci wàllu Europe mais problème bi nag mu ngi commencé ci wàllu lu ñuy waxee 1980 parce que 1980 avant muy am crise économique bi amoon ak sécheresse bi amoon 1973 foofu nag la mbir yi commencé tar mu commencé xaw a metti donc foofu la ñu waxee sax foofu la nawet bi commencé am problème fii te maam Cheikh du ñu wax na nawet sax mu ñu jógee ci naawee wet naawee wet mooy li nga xam ne stableul donc l'hivernage dafa ñëwoon am benn insta instabilité donc foofu instabilité moo taxoon plusieurs migrations commencé donc la ñu gisoon léegi nekkatul woon sax tukulóor yi léegi ñëpp duggoon nañ ci émigration donc émigration boobu nekkul woon ci Europe rek mais demoon na ba ci euh, Côte d'Ivoire dem ci yeneen pays yi Afrique du Sud wala yooyu yu bëri si lañ ko commencé mais 1974 nag bi problème bi amee ñoom la ñu xool ne léegi nag immigration il faut ñu indi nan lañ koy sayto léegi ñii nga xam ne soxla woon nañ ñëw soxlootuñ leen léegi te ki nga xam ne nag tàmbali woon na commencé ñëw am na lenn lu mu doon gis am na yenn ci avantage yu mu doon am moom tamit pour nga téyewaat ko day xaw a metti donc moom moo tax ñu ne 1981 ba 2015 foofu émigration nekkatul réalité foofu mirage la nekk ka at xaa si axlaamin badat fii taqibu mirage moom mooy loolu moom mooy ngay tukki nekk ci oto toog ba ci yàgg seen fu sori mel ni dafa am ndox wa ilayhi masaafaate nee na boo doxee daw ba ñëw ba foofu fekk yow yaa ñi mar wa iyaahu lam yajid bi shay'in boo ñëwee doo fa fekk dara nga am nag déception déception boobu mooy mirage te déception boobu maa ngi koy nettali suñu mbokk bi nga xam ne moom tëdd na diggant xam nga des fois di nga bëgg dara am mais du mën a réaliser wu parce que Freud mu ngi koy wax ci période de refoulement société bi daf koy refouler bëgg na ko am mais réalisé wul moom mu tëdd nag gént ñi ñëw na ko gañe nga lii léegi da ngay dem Europe commencé nga jox nañ la visa yëpp si gént bi ba yaa ngi nekk sa hôtel mu toog ba si àgg rek dégg nag ñu fëgg bunt bi nangul xippi nag parce que xamul ne ndax mu ngi si këram bi wala hôtel ba la nekk mais bi yaay bi mu ne bismillah ba pare siggi nag gis yaay ji dugg mu ne yaay tax nga bu ñu rëfala ma <laughs> mënoon nga ma bàyyi rek ma continuer mais moom problème bi daf ko yóbbu ailleurs dafa toog ba si yàgg xool si kaw ne yàlla yaa ngi may def nii baax na man duma la topp nag dem sangu ba set jàpp ñëw julli kàbbar tari faatixa toog ba si yàgg ne yàlla mbëllee julluwuma fen nee na comme ni ko yàlla naxee moom tamit noonu lay naxee yàlla loolu mooy mooy wax mirage nga yaakaar dara dem ba foofu fekk li nga am li nga li nga fay fekk du loolu moo tax mën nañu wax à partir de 1980 ba deux 2015 yeneen 35 ans yi parce que immigration ñaari phase la yenn première 35 ans yi c'était une réalité yeneen 35 ans yi nag foofu la commencé nekk mirage te xam naa gis nañ ci liñ ci wan ci ci ci ci reportage yi chiffres yi des fois doo mën a comprendre dina wax nañu 19 144 immigrés ñoom ñoo faatu ci ci ci ci wàllu Europe nee na ñu bëriñ dañuy def ni géej gi la sax mais wante désert bi li muy far si ba si si nit kenn mënul xam ñaata la nee na 4091 rek dem nañ si euh, îles yi mën nañu wax ne tamit euh, am na ñoo xam ne tamit si pirogue yi walla si yenn conteneurs yi la ñuy dugg am na ñoo xam ne mën nañu fan cent fanweeri 146 morts as asphyxiés yoo xam ne mënuñu woon nooyi ndax loolu waaw loolu nag dina dina taxaw ñu ñu ñu taxaw jàngaat ne waaw lii lan moo ko waral lan moo tax mu am ak nan lañ ko war a mën a saafara parce que boo bëggee saafara dara li Ernest dinaa doon wax les vraisons de progrès sont ceux qui pour point de départ le reste du passé il faut nga xam passé xam mbir yi nan la tëddee xam lan moo ko gën a gën gën a indi ñun suñu jàngat foofu gis nañu ne euh, problème bi si si si si cause yi bëri na ay ay ay ay ay ay cause psychose yi gis nañu comme ni ñu ko waxee rek euh, problème mu nawet bi amoon gis nañ ne tamit ci euh, wàllu politique d'ajustement structurel parce que ñun dañu am nu ñu doon dundee ci wàllu nu ñu doon dundee suñu wàllu économie ñu ne en 1979 gisoon nañ ne problème yi bi mu xawee commencé am problème euh, banque mondiale ñëw taxaw nag ak FMI ñoom ñu def benn rapport mu ñu ne l'État est yu comme un appareil inefficace ñu ne état bi gis nañu ni ñuy doxalee seen réew yi noonu neexatuñu léegi ñun dinañ yónnee suñu expert ñu def analise bu ñu analyser dinañu wax ban saafara la ñu war a mën a indi donc ñoom bu ñu defee seen analyse ñu ne léegi économie dëkk bi il faut ñu indi ay saafara yoo xam ne il faut nit ñi takk seen biir tuuti loolu moo taxoon 1980 ba 1985 subvention bi amoon ci ceeb bi dañ ko dindi caisse de péréquation et de stabilisation des prix donc internat ak établissement secondaire yi yooyu tamit dañ ko dindi ONCAD ci lañ ko dissoudre yoo nga xam ne mu ngi doon employé 5000 employés 1983 ba 84 ñu ne léegi il faut ñu indi opération maîtrisards yi 1988 la ñu indi si wàllu AGETIP rien que pour rek xëy xool population bi nan la ñu war a mën di dundee ak nan lañ leen di war a mën a euh, changer seen euh, comportement yi mu ne l'indice de prix est passé de 100 à 1919 à 202 pour cent en 1986 dañu gis li nga daan jënd dafa mel ni dafa yokku dafa doublé wu li nga doon jëndee fukki dërëm boo ñëwee léegi dañu la laa ñen ñeen fukk lay jar mu ne nag li si gën a metti population bi ñu ngi koy yëg si wàllu même scolarité ci wàllu école bi léegi dañu indi classe à double fil la ñuy indi élèves yi bu ñuy jàngee tey du ñu yàngu suba léegi lan lañ si gis léegi dem nañ ba indi sax ne niveau scolaire bi léegi xale yi dootuñu redoubler dinañu dem des fois da ngay dem ñu am bac bac man ma leen di defal entretien de recrutement des fois dama naan ndax ñii jaar nañu école wala jaaruñu école comme li ñu ma doon nettali kii ñëwoon ñëw naa monsieur ñëw gis tubaab bi parce que ñoom tubaab yi dañ doon ñëw du xool problème bi élèves yi am ku nekk ñu saafara ko moom mu ne je veux des oies je veux des arbres des arbres mu ko pourquoi mu ne ko parce que j'ai des oiseaux xamuñu lu mu wax ndekete ay picc la amoon mu bëgg garab yaram bi moo amoon picc pour wax la rek niveau niveau xale yi léegi fi ñuy xalaate ak fi ñuy waxee des fois le niveau est tellement bas que échec scolaire bi parce que dañuy gis ne système scolaire bi tubaab yi ñoom ñoo doon xool pour nan la ñu war a mënee defee ay communes ñoo xam ne ñoom soxla nañ ko moo tax tout le système éducatif ci cadre boobu la basé wu di nga gis nit ñi jàng dem ba am seen maîtrise benn compétence duñ ko am il faut que ñun ñu ñëwaat dans les ñu ñëw defaatal la formation pour nga mën continuer ak ñaata nit ñoo ñooy jàng fi léegi nag bu ñuy jaaxle bi ñu laajee sëñ sëñ sëñ Moustapha moom daf ñu indil nañu solution bi mu ne en 1918 la ñu wax ne il faudrait le sang de mille martyrs de la France pour islamiser un seul tout-couleur à cause de Cheikh Omar mu ne comme on n'a pas réussi à notre mission on va faire de mauvais musulmans parce que ñu ne xam nañ ne xale yi bu jiite bu diine jiitoo si ñoom rek àdduna dinañ leen mën a jëriñoo penc dinañ leen bëriñoo mais ñoom comme tubaab yi lan la ñu bëgg ñu ñuy continuer toujours di ñu jëriñoo nañu fexe ba kii nga xam ne mooy dem ba am diplôme am dem di taxaw di définir ay politique de développement di wax dëkk bi nan la kii nan bañ a xam dara ci diineem moo tax l'âge scolaire nee na foofu ñu jóge ko 9 ans indi ko 6 ans ñu toog ba ci yàgg ñu xale xam ne xale bi sax daan na dem euh, daara entre 2 ba quatre ans ñu ne léegi nañu indi jardin d'enfants ñu xam ne sax entre. un ak deux ans sax xale bi même bu fi jàngee baasin mimara comme ni ma ko doon waxee soxna Noge ne ko baasin mimara boo ko jàngalul sa doom bu ko bàyyiloo dara bu ko sikk mooy siin bi miim bi bu ko miimal dara lu luñ ko wax moom la mais boo ko jàngalee baasin mimara dina xam moom fan lay mën a teg tànkam te doo ko mën a nax mais ñoom loolu lañ doon bay ñu kii ko léegi ñu indi case des tout petits vacances yi jot nga xam ne xale yi si lañ daan profité dem daara ñu indi colonie de vacances ñu ne fi ngay gimmee ba bi ngay amee sa sa sa doctorat duñu la permettre dara nga xam sa wàllu diina moo tax moom processus contraire bi la indiwaat moo tax ñu indil ñu daaree ngoon indil ñu hmm? colonie de vacances yi indil ñu Moustachid Junior yooyu yëpp pour nga xam ne contre kaala yeneen yi mais liñ si xam liñ si xamul mooy ñun suñu xalaat chaque fois tubaab yi ñoom ñooy ñuy tëral na ñun nii la te li si ëpp solo moom mooy lii valable foofu valableul fii parce que programme d'ajustement structurel dafa valable woon en Europe à un moment de leur histoire ñu utiliser ko mu marché moo tax ñu ne loolu nañ ko indi Afrique moo tax ma ne programme boo mënti indi il faut nga xam réalité sociologique yi nit ñi dund ñu ngi koy nettali si benn village village yi jigéen soxna yi ñoom ñoo doon doxi peut-être 5 kilomètres dem rooti ñëw tubaab yi ñëw fa ne lii dafa metti ci jigéen nañu fexe ba indi ay robinet ñoo xam ne jigéen ñëpp dinañ toog seen biir kër loolu koo ko wax nga ne waaw mais gis ñu village bi nga xam ne amul woon problème parce que jigéen dañuy seetlu ne biñ daan rooti lañ daan régler problème mu xale yi bu ñuy dem bu ñuy ñëw problème mu góor ñi ak mag ñi seen koy régler parce que jigéen moom mooy miroir de la société mais bi ñu indee robine yi village bi nga xam ne amul woon problème commencé na am problème léegi ba commencé guerre civile am si biir village bi ñoom ñu ngi doon indi saafara ba pare jur lu gën a garaaw parce que xamuñu les réalités moo tax ma ne lépp lu ñu étudier rek mooy comme un poisson hors de boo étudier dara defoo ko si wàllu environnement bi rek da ngay gis ne day am problème moo tax bi ñu demee ba mënatuñu ñoom ñu ne ñu léegi ajustement structurel bi nii la la ñu indi dévaluation di franc CFA dévaluation boobu nag. moom moo indi ñi nga xam ne ñu ngi woon dans les villages ñu commencé ñëw Dakar te gis nañu si si si wàllu Dakar li ñuy wax macrocéphalie urbaine Dakar 550 mètres carrés la 0,3 pour cent du territoire bëgg accueillir la moitié de la population du senegal donc 18 000 en 1891 mu yokk 40 mille ba léegi dem nañu ba un mille un million huit cent dix neuf pour cent de la population totale du pays et cinquante pour cent de la population urbaine mooy Dakar mooy nit ñi bàyyi nañ seen tool yi pro problème programme stru ajustement structurel bi ñu defoon mooy defar suñu réew mi defaru ko léegi ñëpp fàq si nañu ñëw dakaar mais li ñuy jàng ci sociologie moom mooy day am structure sociale structure sociale mooy réew mi ni muy doxee. mais dinañ dem ba ville bi dina accueillir mais à un moment donné ville bi dootul mën a accueillir ñi ma accueillir daf leen di rejeter dans la périphérie moom mooy les lieux de bannissement moom moo indi leen le nom de banlieue banlieue foofu la jógee les lieux de bannissement mooy ñi nga xam ne dans la si si wàllu centre bi soxlaw ñu leen fi dañ leen di yóbbu dans dans la périphérie ñoom bu ñu nekkee périphérie bi nag gis nañu ne dévaluation bi am na problème yi xew na léegi amatuñu benn solution parce que école bi de nekkul nekkatul modèle léegi mënuñu réussir ci école bi si wàllu njaay mi ak jënd bi problème am na fa donc amuñu benn chance pour mën a pour mën a génn xam naa foofu tamit dinaa ci xaw a intervenir pour wax ne banque mondiale bi mu ñëwaatee dafa ne problème mu Sénégal problème mu pauvreté la te ñun suñu politique yi nga gis DSRP document stratégique de réduction de la pouvreté bi ñu commencé à partir de mille ba mille 2010 dafa mel ni rek benn château bu ñu def ci bu ñu établir de la glace parce que liñ si wax moom moo dëppoowul ak les réalités du terrain bi ñu ñëwaatee tamit à partir de de de 2012 léegi li ñu wax politique Sénégal émergent tamit fi ñu ko basé wu tamit mooy tamit c'était les conséquences bi DSRP indi woon indiwaat ko sur les politiques de la pauvreté moo tax ma ne delluwaat jàngat parce que yàlla moom li mu wax leer na li ma li ma leen indi tëral leen ko boo leen si jàppee. lu leen war a yomb di leen war a yomb fa amma man axta wa taqa wa saddaqa bil xusna fa sanu yasiluhu lil yusra mais boo leen demee ba li ma leen tëralal doyatu leen fa amma man baxila wastaxna wa kazzaba bil xusna yéen a ñi xajamal yiwu yàlla lu si xew fa sanu yasiluhu lil yusra lépp lu leen war yomb day fexe ba mu jafe leen moo tax si benn jàngat maa ngi ko doon wax euh, professeur Cheikh Sarr mën na ko si benn jàngat laa gisoon Serigne Moustapha parce que ñi bind intellectuel Sénégal yëpp yi bind su la pauvreté dañuy wax la pauvreté réduction de la pauvreté lutter contre la pauvreté dindi fi pauvreté képp ku wax rek day mel ni lutter contre la pauvreté la ñuy wax ma dégg waxtaanu sëriñ moom mu mel ni dafa indi des aspects positifs bi muy indi ay miskin ay fuqara yooyu mu indi certains aspects positifs ma ne lii jar na jàngat si laa si topp di si jàng di si jàng ba xam ne ne lii nga xam ne moom moo indi woon suñu problème bi yëpp moom mooy li ñu basé wu sur les aspects négatifs de la pauvreté effet contraire bi la am te sëriñ rek laa mës a dégg mu indi les aspects positifs si laa topp ba bind si cinq cent et quelques pages si les aspects positifs de la pauvreté wax leen ne pauvreté bi mu amee parce que am na baytu bu ñu bu ñoo xam ne dinañ ko àbb zakiyun wa aska man yura min lidaatihi bu ñu ko doon àbb rek sëñ Moustapha lañ koy jox fi fiyun wa aw faaman sama min rijaalihi parce que si wàllu boo dugg rek di nga xam ne dimension bu mu si wax ak nit ñi bokkuñu parce que mës naa toog suñu benn prof bi may soog a ñëw Sorbonne xam nga diñ koy tuddee mu ñëw ne le terme bon Dieu ñëpp toog mu ne c'est un terme impropre wax ko benn philosophe a ko wax gars yi naa ah lan moo tax mu ne waaw parce que le mal existe si le mal existe mbon mbon bu amee soit c'est Dieu il est impuissant devant le mal. Il ne méritait pas le titre de bon. Soit il est avec le mal, il ne méritait par le titre de bon. Soit il est impuissant, il ne mérite pas le titre de, de, de, de parce que Dieu est puissant. Soit il est avec le mal. yëkk ti sama loxo ma na ko de sama benn prof nee na ma le mal c'est un bien mal compris mun ma il faut ma donner ses références ma ne ko ñun daara ji nag xaw nañ laaj foofu parce que mënuñ ma koon jox benn référence benn téere boo xam ne rek bind nañ ko daara ji ne Serigne Moustapha lii la wax lii la wax lii la wax mais bu doon tabax tabax na ay gratte-ciel si li mu wax donc foofu jar na ñu def si effort si yii nga xam ne mu koy wax ñu koy ñëw indi dans des di ko bind tubaab yi jéem jéem ko xam ma ne ko parce que xale di ngay gis liir mu am bakkanam fattu yaay ji di jël coton-tige di ko dindil fattar ñi bi xale bi du jooy liir bi di yaay ji di continuer xale bi bu mënoon firi dafa naa sama yaay bëgguma parce que li nga may def mu ngi metti mu ngi continuer mais yaay ji xam nañ ne moo gën si moom mais xale bi mënu ko firi mais yaay ji mën na ko firi donc moo tax mën na ko la mal peut-être un bien mal compris donc loolu moom moo tax mën na ko le terme de bon Dieu n'est pas un terme impropre donc si wàllu boobu biñ ko jàngatee gis nañ ne comme li ñuy wax naa pauvreté moo indi immigration mën na leen déedéet dañu taxaw foofu parce que pauvreté day am aspect positif parce que liñ ci jàngat moom mooy bi programme d'ajustement structurel yu commencé population bi commencé am problème man dama ñëw na benn indicateur rek laa soxla mooy l'alimentation ci alimentation rek laay jël pour xool société bi nan la doxee ak lan mooy problème am parce que dañ ne c'est un fait social total moom la ñoom Marcel Mauss indi ñoom ñëpp wax ko ci mais ma ne boo leen di xool parce que ñun tubaab yi lan la ñu njëkkoon indi ñun dugub lañ daan ndékkee soit mu nekk cere soit mu nekk laax soit mu nekk euh, ay fonde mais ñoom dañu commencé may ñu blé di ñu may mburu mi mburu mi ñu ne dañu commencé may ba ñu tàmm ko ñu arrêté ko commencé ñu ko jaay fekk ñun amatuñ suñu habitude yooyu dem nañ ba njóobeen bu ah oustaz baal de bu yeewu te lekkoo mburu rek moom pour moom ndékki mais bi pauvreté bi amee problème bi bi mu amee dañuy gis ne population yi man bi ma leen doon étudier damay gis plus ñuy am problème rek plus il se retourne vers l' alimentation locale ndekki yi yooyu yëpp la ñuy commencé di alimente wu li nga xam ne ñun moom la ñu amoon ma ne plus nit ki di am benn richesse plus muy def extraversion de l' économie du pays parce que ce sont des aliments importés lay jënd dem yenn supermarché yi wala yenn kii yu cher yi loo xam ne c'est toujours importé donc même si fruits yi sax fruits importés ngay faral di lekk alors que ñi nga xam ne moo ñuy faj dëgg comme li may wax mooy ay new solom sa dem sumb yooyu moo ñuy fay parce que lépp luy kii sa dëkk loolu moo ñuy kii tubaab yi léegi bàyyi nañu médicament yi si loolu lañu dem boo demee Paris léegi ay pharmacopée moo fa xew mooy ñun suñu médecine traditionnelle moom la ñu jël léegi moom la ñu fajoo ma ñun tamit demoon nañ ba suñu structure sociale plus que tu es euh, boo demee plus que tu es pauvre plus ngay dem di dugg sur di gën a am xel si wàllu li ngay lekkee si foofu la ñu indee tu consommes moins de sucre ti consommes moins d'huile mais plus ngay am plus ngay consommer yi nga xam ne moom mooy indi hypertension artérielle ak jabet ma ne plus ngay am plus ngay cons euh, contribuer à l'extraversion de l'économie du pays suñu économie bi nga xam ne yow bitim réew ngay gën a dimbali que li nga xam ne moo nekk fii loolu moom moo taxoon ba paysans yi comme li ñu doon jaay moom tamit li ñu doon bay daanañu ko mën a jaay daanañu ko mën a écouler parce que population bi duñu ko consommer loolu moom moo tax automatiquement ñoom dañuy quitter seen terre ñëw par rapport à Dakar dakaar nag dem ba am macrocéphalie urbaine macrocéphalie urbaine boobu nag lan la indi li ñuy wax inégalité sociale le vrai problème bi ñu bâtir c'est la pauvreté alors que le vrai problème c'est l'inégalité sociale parce que bu ñu gisee gis nga sànq compté na 1000 euros des fois il dépense ñi nga xam ne ñooy dem tukki 6 million ba 7 million pour mën a dem ñoo ñu mën a leen c'est pas les population pauvres ñu koy def suñu jàngat daf ñu may ne c'est la classe moyenne bi nga xam ne dafa am système de régression sociale ñoom ñooy ñëw nag pour se maintenir dans le dans dans la, la structure sociale ni penc mi dundoo parce que léegi penc bi dafa am benn fracture sociale léegi basée sur la la la richesse parce que dañuy gis ne à un moment donné comme ni mu ko wax immigré yi yónnee nañ xaalis bu bëri ñu dem si banque mondiale banque mondiale indi ñu condi conditionnalité de l'aide au développement bi ñu indee conditionnalité xaalis bu bëri lañ fi dugal donc xaalis bu bëri boobu bi mu duggee une minorité ñoom ñoo ko jël accaparé wu ko majorité bi nag dem dans la dans dans des problèmes dans l' sociale bi majorité bi demee nag dans l' sociale moom mooy indi ki nga xam ne dafa bëgg gis boppam si structure sociale bi gisul dara li ko wër lu ko mën a permettre muy dem dans dans le haut pyramide de la société parce que société bi moom mooy fonctionner noonu bañ nañ ko sax ba dañ koy nettali boo nekkee soxna naa am na ku ma bëgg dañ naa fan la nekk ndax mu ngi Europe wala mu ngi fii boo nee ñu ngi Europe ñu ne ah sa liggéeyu ndey la boo nee mu ngi fii ñu ne yàlla baax na lu muy liggéey nga ne lii la ñu ne ah yàlla baax na médité nga ko boo nee ah moom de étudiant la wala menuisier la ñu ne ah yàlla baax na yàlla balaa ñu ngi indi daal mooy de dernière structure bi donc ku bëgg am ascension sociale ci cadre boobu la alors que bu njëkk da nga doon wax diw dafa ma bëgg dañ ne fan la dëkk kan mooy yaayam ndeyam kan mooy baayam xool parce que c'était une société d'être léegi à telle enseigne on devient une société d'avoir à telle enseigne que celui qui n'a pas n'est pas loolu moo tax phénomène bi ñi nga xam ne tamit mënuñu percer ci structure sociale bi de de l'avoir dañuy obligé génn ci biti pour mën a am pour mën a soog a mën a mën mën a ñëw donc boo bëggee régler problème bi c'est l'équilibre sociale ngay war a indiwaat mais boo nee damay liggéey sur la pauvreté rek am na benn livre dafa bind qui se nourrit de la pauvreté muy laajte parce que képp ku wax rek ne man de dama am projet dama bëgg a lutter contre la pauvreté nit ñi jox leen xaalis donc c'était un phénomène boo xam ne moom mooy continuer ba léegi te alors que destruction sociale bi la donc vrai problème de l'immigration mooy problème d'ajustement structurel yi li ñu indi moom mooy nga xam ne dañu dem ba déstabiliser suñu économie du pays indi fracture sociale indi inégalité sociale accrue inégalité nag fu mu xew day am rébellion moo da ñaari téléfilm yenn instant moo amoon mooy góor góorgóorlu ak njublan yéen am na ñoo xam ne dañuy choisir njublan am na ñoo xam ne dañuy choisir góorgóorlu donc moom la ñuy wax les déviances sociales donc déviance sociale yépp gis nañ ko bu ñu koy war a mën a saafara si cadre boobu lañuy kii mais boo nee damay ñëw pauvre yi di leen dimbali di leen jox xaalis rek dangay ngay gën a indi extraversion de de de de li nga bëggoon parce que loolu tamit il nga jàng ko xam structure bi sociale bi na la war a mën a demee donc gis nañ ne immigration bi à partir de benn instant bi nit ñi commencé dem la France commencé nag indi l'instauration visa indi carte de séjour ba léegi ñu ne li gën a garaaw compétence léegi ñan la ñu soxla suñu cerveau yi moo tax balaa ñu lay jox visa rek ñu xam ne yow am nga note yu baax ñu jox la bourse may la nga yóbbu ko te en général ñun xam nañ li ñuy wax ñii ñu dem yëpp un dixième bi ñoom ñooy ñibbisi les neuf dañuy rester foofu. donc état bi li nga xam moom amul lu mu liggéey état bi lan lay def ce sont des taxes taxes rek lay dundee li muy dundee ci taxes yëpp. moom bu ko jëlee dajale ko daf koy financer ay étudiants étudiants yi dem bu ñu paree étudiants yi du ñu dellu si donc yow yaa ngi développé sax yeneen économie yeneen dëkk yi donc si wàllu esquisse de solution il faut ñu indi conditionnalité des bourses yi nga xam ne moom la ñuy joxe parce que ki nga xam ne dem na ñëwul c'est le fuite des cerveaux parce que tamit boo dellu see automatiquement en général si pour nga am intégration si société bi wala salaire bi ñu la doon fay ak fii yàllax yaale kilifa rek moo tax ngay dellu si wala am si si si si yenn foo foo foo basé donc loolu moom moo tax ñu ne accord de pêche yi tamit indi na si li nga xam ne moom moo gën a indi si wàllu immigration parce que accord de pêche bi ñu ko kii bi ñu ko njëkkee signé suñu jën yi yëpp dañ ko commencé woon yóbbu moo tax ñi njëkk a dem immigré pour l'immigration irrégulière moom mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo doon nekkoon si gaal yi donc ñoom ñoo soppali ku nekk ay passeur parce que si loolu la ñu war a liggéey donc gis nañ ne immigration ñi si war a liggéey ñi siy liggéey si wàllu reportage bi ñi dundal dafa bëri moo tax phénomène bi dañ koy bàyyi mu mu continuer bu ñu gisee les trafiquants ñu ngi si ñi nga xam ne ñu ngi réseau visa yi ñoom ñu ngi si donc ñooñu ay lobby la ñuy nekk bu ñu gisee étranger ñoom tamit à un moment donné immigration bi des fois daf leen di dañuy am conséquence parce que ñii ñëw foofu automatiquement dañuy fay seen impôt di développer seen économie donc foofu dañuy xaw a am ambiguïté moo tax Espagne ak Italie dañ leen di xaw a mere parce que ñoom ñooy toog si yàgg def def ay régularisation yu yu bëri moo tax dematuñu woon France c'est surtout vers l'Espagne ak l'Italie moom moo doon indi notion Barça wala ba Barsaq pour dem nga xam ne nag loolu tamit bu ñu demee ba koy wax ah dina xaw a doy waar donc immigration am na am na ay point positif moom mooy transfert de fonds bi ñu ko doon wax li ñuy dimbali Sénégal bëri na donc wax nañ ko c'est à 15 pour cent du du produit intérieur brut plus que l'aide au développement li émigré yi yoon yónni donc loolu c'est c'est déjà lu lu lu baax dans le domaine de la santé def nañ ci ay action yu bëri mais gis nañu ne biñ ko doon def ak jamono bi bokkul léegi problème bi moom mooy même boo demee ba ci biir ba ba yegg këyit bi boo ko amul booy liggéey travail au noir ngay def te dañ lay gën a exploiter te condition yi ñu fay nekk yi ñu leen di dugal clandestinité da ngay nekk di làqatu di dugg ci dans des trucs contigus ba nga xam ne en général da ngay xam ne jaratu ko parce que ñii dem xamuñu lan la ñuy fekk foofu am na loo xam ne boo ko xamoon rek di nga di nga bën a mën a mën a bañ a dem donc ci euh, cal cadre boobu moo tax ñu ne conséquence phénomène migratoire yi dina am euh, phénomène conséquence négative mooy exode de des des compétence dina indi tamit que des fois kiy dem société bi wala famille am ñoom ñooy cotiser jël ko jox ko ko moo tax ñooñu tamit doo leen wañ bëgg culpabiliser ba mu jeex à un moment donné ay victimes lañu il sont victime de la structure sociale ay victimes maintenant des inégalités sociales mais nag loolu nekk victime victime am na loo xam ne boo ko amee rek peut-être que amaate na de dina la mën dimbali moo tax ñu ne wàllu si wàllu esquisse de solution foofu la ñuy jeexale comme ce sont les PAS programmes d'ajustement structurel ñoom ñoo indi inégalité sociale indi défragmentation de l'espace sociale indi nit ñi dem ba àndatuñ seen sago di dem pour defaraat il faut nga indiwaat le la méthode PAS la méthode PAS nag dootul nekkati programme d'ajustement structurel mais protéger alerter et secourir man ci cadre boobu laa ko bëgg a indi ci wàllu protéger bi moom mooy ki nga xam ne dafay dem te te te xamul mooy réseau yooyu il faut ñu indi ay sanctions yoo xam ne sanctions exemplaires ci réseau yi même tubaab yi bu ñu demee ba jaaxle projet boo leen indi dañu koy financer mais bu ñu financer projet yi gis nañ projet yi ñu financer yépp intellectuels yi ñu ko joxaat ñoom ñooy dem def des bourses d'études wala des projets d'études pour étudier le phénomène def ay séminaire ba xaalis bi jeex ñu ñëw ne problème bi dina réglé wu parce que def nañ séminaire ñuy nettali ki nga xam ne dafa àndoon ak maamam Égypte mu gis pyramide yi mu ne maam lii est-ce que ay machine yu rëy rëy ñoo ko liggéey mu ne ko déedéet ñu ngi ko liggéey di amuñu woon machine mu ne ko moo dëgër nii mu ne ko waaw mu ne ko nan la ñu def ba réaliser lii mu ne ko seen jamono séminaire amul woon waaw wallaay waaw maam Cheikh dina ko mu ne seen jamono séminaire amul woon parce que gis nañu ne yu bari bëri intellectuel dañuy dajale mais gis nañ la si si si wàllu liñ siy indi per diem yi ak voyage d'études yi yooyu yëpp moom mooy indiwaat tout l'argent bi nga xam ne moom la ñu koy jox donc les protagonistes ñi nga xam ne moom la ñu war a dem si affaire bi ba léegi yeggagul si ñoom moo tax foofu tamit problème la am moo tax kooku tamit da nga ko war a protéger protéger tamit indi nañ Frontex gis nañ ko Frontex ay milliards les milliards la ñu jox pour surveiller les côtes alors que amaana am na foo xam ne bu ñu ko fa dëggaloon rek parce que kii bi wax na ko si reportage ñun bu ñu amoon luñ suñ lu ñu gënal du ñu dem mais bi ngay demee xamoo looy fekk si boo demee fekk si fa problème am fa te amaana yi amul sax wóorul sax nga yegg ñëpp taxaw di ko seetaan loolu c'est un boo xam ne il faut ñu wax ko indil ko ay saafara nu mu gën a gën a gën a gaawee mais saafara yi nag ëppul li ñu alxuraan wax parce que tubaab yi jàngal nañu pour indi saafara wala pour indi boo defee diagnostic ba pare automatiquement yow booy wax alxuraan waroo ko ci boole suñu intellectuel yi ñu bëri du ñu gis benn soubassement boo xam ne c'est sur le Coran tey Coran nee indi nañ suñu solution yëpp alors que ñun nous sommes un pays 95 pour cent musulmans mais toute notre superstructure juridique c'est basé sur le droit le droit d'origine judéo-chrétienne parce que dañuy copier rek boo demee les grandes décisions de euh, Gaja grands arrêts de la journée administrative France ñun ñu indi Gadjas ñoom bu ñu indee seen traité ñun ñu indi OHADA te booy xool traité yi des fois même chose la ligne par ligne point par point te des fois réalité sociologie sax du ñu bokk donc ce sont des politiques qui sont inadaptées parce que tamit bu ñu dellu si delluwee si alxuraan rek moom duñu dinañu wax moo tax si wàllu boobu bi ñu demee ba jaaxle sëriñ dafa ñëw ne am ma yata saaloon il a réglé le problème nan la ñuy defaree état anin nabayil azim allazi hum fihi muxtalifuun mu ne kallaa dinañ xam sa yaxlamun summa kallaa sa yaxlamun mu ne état pour nga structurer la alam na ja'alil arda mihaadan mu ne état il faut mu am benn territoire ñu xool Jikel Maurice Horiou tous les grands intellectuels bi ñuy indi état dañ ne c'est un territoire sur la délimité par des frontières sur la laquelle vit une population et dans laquelle s'exerce un pouvoir mu ne alam na ji alil arda mihaadan mu ne wal jibaala awtaadan bu ñu ko firee montagne yi compliqué nañ ko firee territoire waxalaxnaakum wa azwaajan mu indi population wa ja'alnaa nawmakum subaatan wa ja'alnaa layla libaasan wa ja'alnaa nahaara ma'aashan wa banaynaa fawqakum sab'an shidaadan nee na nag état bu mu indi ñaar mooy nekk frigide wa ja'alnaa siraajan wa haajan mooy politique bi ñuy indi si wàllu courant bi mu ne politique de l'énergie fu mu am défaillance rek nga gis état bi day daanu wahaajan wa anzalna minal muhsinaati maa an sajjaajan politique d'assainissement te gis nañ gouvernement yi nga xam ne ñoo daanu yëpp boo xoolee aux structure ñaar yooyu ñoo leen daana te ñaar ñoo gën a indi di yëngal kii bi ba aaya bi nu mu indee donc structure état politique développement yooyu yëpp jàngal nañu ko si si si wàllu daara ji mais malheureusement nag moom mooy ndaw yi dañu xamul loolu dañu ci jotewul moo tax boo ko protégé na ko bu ko dem na ko alerte nag wax ko nag tubaab yi bi ñuy ñëw ba daje Seydi Hadji Malick ñu ne ko dégg nañ de si jàkka ji dafa mel ni ay entraînement de guerre la ñu dégg parce que dinañ parce que nit ñu daan wasifa te ñoom sañu ñu dugg dafa mel ni entraînement de guerre Seydi Hadji Malick ne dafa am lu ñu siñante woon ak suñu borom man ma ñëw bëgg ko appliquer yéen ñëw ngeen weddi ko loolu rek lañ wan fa ndaw yi nan la ñuy jaamee seen borom ak nan la ñuy demee yegg si yàlla moo ñu indi mun ne ko nag ñun suñu philosophie lan la ñu basé wu mooy ëllëg du añ du reer mais na ko sedd mais yéen un tien vaut mieux que tu l'auras àdduna bi jël leen ko da gis ne lii ñuy kii yépp c'est le bien matériel moo leen si indi parce que am na si yoo xam ne bu ñu la si formé bien matériel doo du lu yóbbu hali dahru intaalal xuraabu yatiibu wa jaa rasulul mawtu baax du yanuubu nee na gis naa nit ñi araaka na siital mawtu dafa mel ni àdduna topp na leen na siital mawtu ñu ngi fàtte fàtte lu te yëgale na wal mawtu mawridun fa li kulli min bahril mamaati nasibu nee na ñun dem nañu gis àdduna def ko benn interview di ko poser question fa in tasali dunia fa inna umuraha fa in tasali dunia fa inna lazizaha fa in tasali dunia fa inna wasaanaha di ko laaj di ko laaj lan mooy àdduna àdduna moom mu lay wax ne àdduna man ka at xaasi axlaamin dafa mel ni génn génti aji nelaw boo yeewoo rek ñàkk yëpp mu ne gis naa nit ñi parce que de loolu mooy manqué jeunes yi li nga xam ne moo moo leen indi seen mission sur terre xamuñu ko surtout ñi nga xam ne dem nañ ba ñu formate leen si wàllu école xamuñu dara seen daara parce que mayuñu leen possibilité mu ne araaka siraajan taamurun naa sa naasiyan am na ñoo xam ne du ñuy wax taalibe sondeel lañu ñu wax mu am décalage entre li ñuy wax ak li ñuy jëf mu ne yaa ayuhal ma maxalla diyaafatin yow nga xam ne amoo dara loo yitti woo lu dul tabax kër alam ta'lam anna al-jalaa qariib nee na philosophie boobu ñoom moom la ñu basé wu moom la Serigne Babacar indi moom la ñu mu Moustapha jàngal moo tax ñu ne crise bi ëpp bi gën a metti mooy crise yu ñàkk kilifa du crise adolescence de soxna Mbodj crise yu ñàkk kilifa mooy crise bi gën a metti ci jamono parce que doo xam fooy teg sa tànk da ngay dem rek moo tax am na ñoo xam ne boo amee kilifa am na loo xam ne du la ci fekk parce que dina la wóor ne fi nga nekk sa wërsëg dina la ci fekk yàlla ñaari aaya la wax dafa ne si àdduna fam suufi manaakibihaa bu dee si wàllu xéewalu àdduna dox leen jarul ngeen di daw dox leen fam suuf mu ne nag bu dee xéewalu ala ala alaaxira lan la wax wa saabiqu ilaa ngeen daw pour dem si si si si mag ñi liñ ko xamee xam ne ñeneen àdduna moom ne Sëriñ Tuubaa wax na ko ne àdduna ba ma yëgee ne taxandeer la te boo koy dàq doo ko jot laa ko wan gannaaw <laughs> taxandeer boo ko wanee gannaaw mu topp la te doo ko soxla sax ñoom loolu moom moo doon seen philosophie moom moo tax jeunes yi tamit il foog ñu alerter leen parce que ñaar moo xew léegi système LMD bu ñu indi université ak système LMD bi ñu indi dans l' école de la rue l' de la rue LMD lutte marche danse loolu rek lañuy ñuy xam te man lutte bi du lutte bi en tant que tel mais julli timis bi ñuy bi ñuy sëgg ci nga xam ne ñoom ñoo war a am leeru nampatal bi nga xam ne moom la jóge arche nga xam ne mu tombe haasi bukratiha haasi bi hamratiha haasi bi haratiha haasi bi ustaha mu tombe timis li mu la indil mën a si leer ñuy sëgg làmb si instant boobu kenn dootul tal sa bopp ñi nekk star ñëpp kenn du si julli waxuma la ne ñi nga xam ne ñoom ñooy toog di seetaan donc moo tax ma ne si wàllu loolu yaa angi su roche parce que am na ñoo xam ne demuñu bëgguñu tamit jullit yi dem parce que ku lakkale da ngay bëgg moroom ñu ngi doon wax ña ñaar ñooñu nga xam ne borom kër gi dafa bàyyi woon pisinam bi foofu ñaar yi nga xam ne seen bët yi neexul chaque fois dañuy ñëw rek sangu jour boobu borom piscine bi ñëw rek vide piscine bi de ko nettoyé kii njëkk a tëb rek boobu bi na ndang mu bëgg keneen ki ñëw mun a paccax paccax ndox mee neex keneen ki na ko sëriñ bi man leen moom a jaaxal paccax paccax laa njëkk ndong laa njëkk dégg paccax paccax <laughs> donc am na si yoo xam ne boo ko dundee da ngay bëgg moroom mais ñun fi ñu am si jullit li ñu am li ñuy yonante bi wàccal Lamartine dem na ba wax ko Seydina Mohamed a institué un livre donc chaque lettre et devenue une nationalité spirituelle et il a imprimé au caractère indélébile de ce livre la haine des faux et la croyance en un Dieu unique et immatériel il était philosophe orateur apôtre législateur conquérant d'idées, de dogmes rationnels, de culte sans image, fondateur de 20 empires terrestres et de empire spirituel. Voilà Sayyidina Muhammad. kooku bu ñu indee politique nan la ñuy structurer état nan ngay defee nan ngay yaree nan ngay kiiwee ngan la waaye nañu si jàpp si mais ba ñu si jàppoo rek fasanu yasiruhu lil usra moo si indi donc nit ki nag boo nekkee bul dem parce que li ngay dem baaxul nga ne ko toogal ndax ndaxte jaru ko mais di nga am loo ko indil loo ko tegal di nga am loo ko tegal mooy danga ko war a secourir si wàllu secourisme boobu gis nañu ne ñun Sénégal en général comme ni ma ko doon waxee rek si wàllu échange international yi ça veut dire que dafa mel ni ñun participer wuñu si da ngay gis plus nit di kii consommation bi muy am ce sont des consommations d'origine des produits étrangers lay jël ñun yan suñu produit ñooy dem étranger amul bëriwul bi may utiliser étudier port autonome de Dakar sur les politiques de ñaata conteneur ñooy ñëw chargé ak ñaata conteneur ñooy dem vite mbalitu tubaab yi sax léegi commencé nañuy ñëw déverser wu fi donc sur la rendez-vous du donner et de recevoir ñun dañuy recevoir rek dara dara demul te am nañ fi ñoo xam ne wax dëgg man dama si dem xeex si sama tànk dem naa ba meeru euh, Aulnay-sous-Bois ak léegi ci ma indi leen fii à Dakar pour ñu ñëw xool réalité yi pour ñu xool nan la ñu war a mën a jàppale jeunes yi parce que lenn bëgg nañ ko mooy formation te formation boobu c'était ak L'Oréal Paris dama doon wax ñoom danañu am comité d'entreprise lu ñu def ñun suñu artisan yi nan la ñu war a mën a def ba seen kado yooyu kado yu sew yooyu yu ndaw yi yoo xam ne dina am solo pour ñu jël ko vulgariser ko mais dafa amoon solo solo solo ba nga xam ne nga xam ne moom may genre ay ouvre-lettre la nga xam ne day nekk sous forme couteau la en bois yoo xam ne yu ndaw yoo xam ne on peut le faire l'exporter en Europe ñun par rapport ak usine de confection yi est-ce que y a des écoles de formation di la jàngal confection par les par rapport aux normes standards européens nga xam ne au moins ñun sax dinañ dinañu ñëw di di jaay mais lépp dañuy nekk des pays qui sont consommateurs à un moment donné suñu balance économique du dem suñu balance économique du dem donc euh, si si wàllu yooyu il faut ñu indi si des des politiques ça veut dire que dans la formation des jeunes ça veut xam nañ ne le modèle bi ñu tegal si wàllu école bi du modèle bu jëm këm du jëm kër ñaata ñooy réussir à l'université ñaata la état bi di dépenser par rapport à ces jeunes là la le budget de l' par rapport à ces jeunes te ba en général duñu du du ñu réussir du ñu dem fenn fi alors que dans la formation yi nga xam ne dañ koy bañ fii bu xale yi demee Europe si liggéey yooyu la ñuy nekk. donc foofu tamit dina am importance si wàllu secourir bi ñu indi si des des politiques yoo xam ne dinañ leen permettre que bu ñu ci wàllu liggéey si formation boobu ñu indi leen dans les formations sur certains métiers surtout par rapport à l'artisanat day nekk ni ma ko tuddee laar utile mais bi ma ko waxee dafa am ay boutiques yoo xam ne commerce équitable la ñu tudd plus de mille boutiques ñu ne ma gis nga yéen projet boobu boo leen ko indee Sénégal loo leen defarati ñun dinañu jël produit yooyu dinañ ko jënd dinañ ko vulgariser parce que dañ leen bëgga a dimbali te dimbali bi moom mooy au producteur ki nga xam ne moom mooy produire nan lañ koy mën a jàppale. donc gis naa ne immigration bi nga xam ne am na fi ak conséquences yi mu am bu ñu ko waree mën a saafara rek. il faut ñu protéger nit ki il faut ñu alerter ko jàngalaat ko lan mooy boppam jàngalaat ko démb jàngalaat ko boppam il faut ñu secourir ko si dans le si secourir bi nag il faut ñu indil ko formation yoo xam ne si adapté par rapport ak li nga xam ne dina ko mën a dund nga xam ne fu paree rek dina mën a dem liggéeyi dina war a mën a dem dem si yu bëri donc maa ngi doon wax même si wàllu corpo sax dinañ am si yoo xam ne war nañ ko si mën a xalaat liggéey si lu bëri ba nga xam ne produit yi li ñuy defar li ñuy kii parce que ñun dañuy consommer alors que exporté wu ñu dara en général li ñuy exporté te yi ñuy exporté boo demee Europe des fois ay chinois sax ñoo la koy jaayal am naa si barbes mais sama kii ma àndal ñëw di bëgg expliquer chinois bi na ko ah, je veux les trucs avec les coquillages chinois bi ni ko loo bëgg a yéet <laughs> noonu la ko ko waxee dañuy dem ba jàng sa langue xam la ba pare ñëw ça veut dire que sur ñoom ñoo koy jël sax di commercialiser en Europe en en en Allemagne foofu yëpp alors que ñun dañu toog chaque fois on est dans dans la léthargie. donc loolu bu amee problème bi yëpp duñ ko mën a régler loolu moom mooy indi immigration irrégulière bi ñen baal ñu ak ci guddal bi ci wax bu dëng bi asalaamaaleykum wa rahmatullah ñoo déggandoo waxtaan bi <coughs> li ma doon wax sànq bi may tàmbali loolu la feeñal maanaam gëstoom am na nu mu ko gisee wane na itam nii lu mu nekk nekk gëstukat doomu dara la bu ñuy tënk rek ci ñetti poñ yi nga xam ni moom lay indi wane ne li bu ñuy wax immigration li ko gën li tax mu gën a yokk mooy wàllu maral gi muy wàllu bekkoor bi fi amoon boo demee sax yenn mag ñi boo leen di laaj diw kañ la judd danaan la atum bekkoor ba wala atum maral ba boo demee booru waalo sax duñu lay wax ni la jamono jooju Lac de Guiers bi feroon na ba ab digg bu tuuti moo ci desoon ñaareelu tomb bi moom li mu wax ni loolu mooy cause bi gën a metti beneen bi si sunu jamono mooy 35 ans yi nga xam ne moom moo mujj nekkul wàllu ñàkk bi wàllu pauvreté bi wante wàllu inégalité sociale bi la maanaam ñuy dund ci pénc moo xam ni écart bi dafa ngande bu fekkee am na Sénégal bi ci kaw am na Sénégal bi nga xam ni ci suuf la nekk Sénégal buy am courant ak Sénégal boo xam ni du coupé Sénégal bi nga xam ni nit ki li mu am la ñu koy nattee duñ ko nattee ci lu mu nekk mooy li mu wax ni l'avoir et l'être mu dem sax ci diggante bi mu am le paraître loolu moo tax ba nit ñi sax di tricher amuñu avoir bi seen être bi kenn considéré wu ko ñu indi le paraître di àbbu oto di louer oto maanaam di puukaréew ci yenn yi li mu mujj indi mooy eskis de solution mu indiwaat PAS yi nekkul maintenant programme d'ajustement structurel mu ni kiiraange wala kaaraange foog mu am alerte itam foog mu am maanaam xoddeeku bala ngay lakkale beneen bi mooy secourir nit ki bu demee ba dugg ci ndox boo koy jox jaas yi sax dañ ko téye wante wutal ko yat nga jox ko génnee ko moom noonu la indee waxtaan bi yal na yàlla leeral dënn bi xam-xam bi itam yal na la yàlla may courage pour nga continuer recherche bi ndax yombul si sunu jamono ji boo gisee si PSE bi li ñuy bind ressources yi ñuy tirer si zircon bi lu tuuti la alors que zircon ça veut dire que c'est le Sénégal il est devenu le deuxième pays producteur mondial te sur cette base laa moom la ñuy defaree matériaux yu bëri yi dem ci informatique ak ordinateur lii comme doon wax les africains des mendiants assis une pierre en or yaa ngi yalwaan te xamoo fi nga toog lan la richesse bi nga toog mais ñoom dañuy nax chaque fois ñi ma ko doon wax comme si soxna yi lañuy tàmbalee ak xale yi bi ñuy ci soxna yi dañu naa yow sa sa sa sa sa der rafetul sa karaw rafetul yére yi ngay sol ñoom ñu ne habillement la yow boo solee ñu ne ak accoutrement donc rien ko pour yow di génn seen produit ngay xeesal rek pablement la indi nañ ko fi ak soxna si li ñu doon wax les produits di xeesal rek pour mel ni ñoom te xam nañ ne doo mel ni ñoom mais ce qui les intéresse mooy li ñu lay jaay boo xoolee marché yi développement des produit yooyu dafa dafa dafa atteindre à une kii fulgurante ñu ñëw ñu seen karaw yu rafetul léegi ñoom génn ay mèche génn lu bëri ci gannaaw loolu moo ma leen di intéressé moo tax boo waxee muuru rek seen xol jóg du muuru bi moo leen di intéressé mais li ñu mën a am ci gannaaw bu ñu bu ñu leen génnee ci muuru bi loolu moo leen intéressé moo tax mu ne la cité a cassé la beauté de nos femmes elles sont devenues plus ou moins fardées une beauté éloignée de sa nature profonde mu ne c'est plus que du gâchis c'est une haute trahison là li si am solo nag mu ne là où les marchands de clinquant eux en profitent pour rivaliser avec l'ange de l'esthétique tubaab yi foofu la ñuy bëgg pour chaque fois di ñu indil plus ngay nekk intellectuel plus ngay nekk un gouvernant tout ça si yenn yére yu bëri dootoo ko solati tu plus vers leur consommation parce que chaque fois ñu lay gën a nax rek nga xam yow sa sa sa richesse doo doo doo doo ko mën a kii donc comme li mu wax ku ñëw def la traite négrière ñëw defaat la colonisation ñëwaat def la ko la mi ngay toog di xoole am na lu manqué. il faut ñu gëm suñu bopp mooy l'homo sénégalais sis bu ñu ko gëmee nag gis nga fii Sénégal moo wax naa la même boo demee en Europe les plus grandes institutions da nga fay gis des Sénégalais ñoo fay nag. am na suñu benn mbokk boo xam ne Union européenne la nekk am na keneen koo xam ne UNESCO wax dëgg lu bëri ñu fay kii ñoom ñoo ko ñoom ñoo nekk à la base dans les plus grands organismes da ngay gis ay ay Sénégalais ñoo fa gën nekk automatiquement li ñu am si wàllu xam-xam mais malheureusement duñ ko mën a jëriñoo suñuy réew parce que am na ñoo xam ne intéressé wu leen chaque fois il faut endormir la population jox leen ay somnifères. te lenn lañ koy mën a kiiwee yow sa baax sa baax li nga xam ne xam nga ko te moo wër na ne la gis nga lislaam li si ëpp importance mooy inégalité sociale lay ñëw pour xeex li mu indi asaka li mu indi si wàllu sarax yooyu yëpp inégalité sociale lay xeex tax tubaab yi xam nañ ne lan moo leen mën développer ces inégalité sociale dernier rapport FAO bi ñu génnee ñu ne la production li ñuy bay dans le monde est supérieur à la demande li nit ñi soxla mais malheureusement plus de cent millions meurent de faim dinañ am ñoo xam ne dañ koy accaparer ba pare di la nax par ndànk ndànk ndànk di rafetlu kon contribution yi ak question yi donc kii si njëkk mu doon moo Mor Jaxate mu ne euh, ambition bi si si si phénomène immigration ndax ambition la ou benn phénomène de de de pauvreté dangay gis ñoo xam ne dinañu bëgg jóg état bi bu bëggee day dem wuti ñoom tamit ñu ne il ñu dem wuti mais peut-être booy wuti na nga xam lan ngay fekk foofu ah un moment donné Europe amoon nañu benn opulence bi amoon nañ benn ci wàllu trente glorieuses si mais léegi dañu commencé ba seen richesse yi dafa nekk en déperdition léegi li ñu doon foofu amatu fa xoolal commencé Grèce li ñu leen indi les politiques d'austérité li ñu leen indi ak grec xam nañ ne loolu tamit daf leen di law ci ñoom donc ban phénomène la ñuy indi émigré yi la ñoom ñoo tax lii problème yi am moo tax léegi gis nga front national commencé jël benn ample am ampleur mais xam nañ ne ne ñuy mën a développer seen réew surtout c'est c'est c'est ce sont les les les immigrés te ñoom xam nañ ko sax ak parce que ñoom demoon nañ ne ba tubaab yi ñoom pour la la natalité wala yooyu ay phénomène de constellation dañ leen ba leur pays est devenu devenu vieux maintenant on a besoin des jeunes des jeunes ñoo xam ne dañuy am te jeune boobu nag comme ni ñu ko waxee rek il faut ñaar il faut nga joxe ko nga jox ko conscience am conscience boobu moo ñuy permettre ñun ñu xam fan la ñu war a teg suñu tànk toog suñu réew même bu ñuy dem sax dañuy dem pour xam lan moo fay xew man amoon naa benn projet bu ma amoon ak waa Allemagne mais comme ni mu ko waxee rek des fois am na yoo xam ne yow mën nga ko def mais il faut que bi jox teg si seen loxo ñun bi ñu ñëwee dañu ne projet bi mën nañ ko à 70 pour cent mais il faut 30 pour cent yi état bi joxe ko. surtout mooy xaru tabaski yi rek bu ñu ci paree cent mille xaru tabaski dinañ dinañ leen rendi der bi lan lañ koy def yi yàqu yii def nii alors que projet boobu c'était ñoo xam ne ñi ngay def euh, hmm, équitation laap yi ak fi ñuy toogee ak bot yu ñuy sol benn société moo koy jëy en Europe et c'est très mooy Decathlon ñoom du ñu bëggoon ñëw former suñu artisan yi pour ñuy defar loolu pour ñoom ñu koy jënd en Angleterre en foofu yëpp mais malheureusement kii ma si joxoon rendez ma dem xaar ko ba mu ne ma Allemagne léegi ba ma dem def si ay reportage foofu am na benn journal allemand bu ñu bu bii ay dem nañ sax ba def si ay publication mais waa ji moom tamit comme ni ñu koy waxee rek politicien la mu ne ma jiitu ma Paris maa ngi Allemagne maa ngi ñëw ma dem fa ba sànq ba léegi saatuma ko donc si projet yu mag yooyu mais ñoom dañu ne en fait ils veulent pas financer automatiquement des personnes ou des léegi ñoom état bi la ñuy former mais développement système bi ça que ce sont les populations les protagonistes ñoom ñoo koy jël taawu ko ñoom ñoo koy joxo la coopération par le bas lañ koy waxee mais automatiquement état bi moom mooy moom bu ñu ci tabaxee école wala dara état bee kay moom état bi mooy fay formateur yi mais automatiquement état bi mooy fay ndox fay courant mais ñoom lii si soxla yépp si wàllu accompagnement si wàllu matériel yépp yépp yépp yépp dinañ ko kii loolu dem nañaa ah, demoon naa si projet boo xam ne ministère de l'immigration France bi ñu demee tëral leen ko parce que dañu jaar si FOJIM forum des jeunes ici de l'immigration bi ñu leen waxee problème immigration nan la war nan lañ ci war kii xale yépp xalaat si et ce sont des jeunes ñu indi benn forum boo xam ne forum comme nii ñu indi ba def benn rapport rapport boobu nag moom lañ jox immigration ñoo ne ñu ne à hauteur de xaw ma ñaata millions ñoom ils peuvent le financer mais il faut que l'État ñëw jox si kiiwam bi ñu ñëwee on a presque toutes les autorités mais ba léegi projet bi mu ngi taxaw da xam ne est-ce qu'il y a une volonté politique réelle de faire face à cela parce que des fois li ñuy wax yaa a toujours anguille sous roche parce que y boo beaucoup comme ni ñu koy waxee boo leen xoolee si reportage da ngay gis libi ñoom dañuy ñëw ne immigration bi xew na donc il faut nu donner des milliards ñun dinañu permettre nan la ñuy gars yi dootu ñuy jaaree Libye donc reportage mu ne chantage yi gouvernants yi doon def par rapport à tubaab yi ñoom tamit si si si si cadre boobu la ñuy ñëw donc li mu ko waxee tamit euh, maam Cheikh Ahmed Tidiane Lo solution yi nga xam ne yonent bi indi na ko c'est solution yoo xam ne <coughs> intégration la ki nga xam ne moom moo njëkk ñëw moom mooy dawal ñi nga xam ne euh, amaguñu donc l'immigration choisie pour développer suñu réew bi donc euh, soxna Ndey si tamit ñu ngi remercier ci ci contribution yi moom mu ngi laaj lan mooy c'est quoi tekki gis nga boo demee ci l'aventure ambiguë mu ne en allant travailler en allant apprendre l'école des blancs ils vont apprendre mais en apprenant ils vont oublier est-ce que ce qu'ils vont apprendre c'est mieux que ce qu'ils vont oublier donc parce que philosophie matériale bi bi ñu jàngal moom mooy li nga xam ne da nga koy jël am ko mais Seydi Hadji lu mu lu mu leen indi mu ne li ngeen di sonn yépp dép dépensé wul dépassé wul loo leen lekk loo leen naan loo leen sol ak leen tëdd lazizu taamin wal mu mulaa wa nuumatin li riksin war xaqin wal bi laa asa yawoobu nee ñam lu mu neex neex sobe lay mujj ci yére lu mu rafet rafet dina mujj ràppi kër lu mu rafet rafet dina mujj màppi mu ne jàppaleen ci ki nga xam ne du màpp du ràpp du def dara mooy yàlla donc ñun philosophie boobu la ñu yare mais philosophie boobu nag bañ nañu ñun ñu jëm suñu suñ suñu ndono boobu parce que bu ñu xam ne ne rek comme ni ko maman ki ne waxee il peut plus nous exploiter par rapport à ça donc africains yi ñoom ñoo war a jël xam ne le challenge et là les idées sont là nañ ko jël organiser ko mais malheureusement ku fi créer dara tuddee ko société civile à la fin parti politique lay mujjee ji donc dafa mel ni dafa amoon anguille sous roche wala kii donc est-ce temps mi ngi leen di jaajëfal ci kàddu yi nu mu dëngee tamit alhamdulilah asalaamaaleykum wa rahmatullah <laughs>